Euh, ci benn condition ba nga xamante da liggéey lundi ba dimanche des fois ngay liggéey lundi ba samedi donc loolu ñu koy continuer di ko liggéey pendant ay cinq ans six ans ba quarante ans am na si biir mbooloo bi ba ba loolu am na si biir mbooloo bi donc da bañ demee ba si biir nag donc tubaab bi euh, euh, ay ay conseil juridique am xamal ko ne ñii nga téye di loo pendant toutes ces années la si trop donc yoon tegoo teguwoo si yoon da ngay fexe nga dégager say responsabilités dégager ses responsabilités moy fexeel nga jël ben tâcheronant nga teg ko seen diggante. Mhm. loolu mu ngi koy créer euh, le 20 novembre bi passé donc une fois ben tâcheronant mu dox suñu diggante mom est-ce que koku mu ngi dox ci sen jafé jafé wa koku danaka doxul suñu ben jafé jafé mom dafa ñëw une fois liggéeyu gëna a dëggal liggéeyu jàmm yu fa tubaab bi di teg. légui lu ngeen di ci kër googu. donc ñun luy sàkku ci kër bi moy euh ñun. ñun ñun ñun fii dootuñ nangooti tubaab bi nekk fii biir Sénégal ñëw fii yor suñu ay ressources di koy jëriñoo jëndul engrais jëndul ji jëndul dara suñu géej lañu ubbi ndox mi du dugg naaj bi di ko woowal mu ci récolter ay milliards ba pay di yóbbu France dañun dañun bu ñu fay donc ñun dootuñ nangooti di liggéey pandant cinq ans wala six ans wala dix ans ci régime journalier lu ñu bëgg mooy nañu defaree ay contrat à durée indéterminée wala ñun bañ ñu si ba suñu bakkan waaw ah, tey jii est-ce que mën nañu wax ne xorom si am na rendement ci diwaanu Kaolack Ndangaan ah boo seetee ñu ngi ci gis seen bopp boo seetee xorom bi kenn gis si boppam ah, xorom bi boo seetee wax dëgg yàlla salin doo gis mu oh, muy muy def benn benn benn contribution benn contribution au niveau de l'État régional à la mairie wala tey suñu tali wala doo ko gis salin moom lu ma lui muy def mooy corrompre quelques quelques autorités donc corrompre quelques autorités mooy ne Sané loo ko dégg rek si xumbaay ak mumbaay dugal na si loxoom du dëgg mais à part ça amul lenn lu mu def biir Kaolack Kaolack boo seetee xorom day màgg te xorom bi boo gisee màgg na ba dugg si kër yi day avancé manam kër yi léegi pour nga peinture sax boo defu si carte doo mën a peinture xorom bi ay dégâts rek lay def fii te donc ñun Saalum Saalum ñun ñun surtout surtout surtout travailleur soit disant journal des Sané du Sud

donc ñun ñu téye ñu dañuy liggéey ci condition bobu donc ñepp gis ko autorité yi gis ci ñepp gis ci waye da mel ni bi tubaab bi dañu kon di ñu nopp ba légui kenn du ci wax kenn du ci réagir ñun nak dañu né day dag ñun mbéju kanam na borom mo koy fajj la bopam boppam ñun dañu paré juk pour fajj pour fajj suñu situation actuelle parce que ay borom kër tok ba heure bi tok ba heure pendant un mois ñu tok mu ñëw inu ñu benn façon liggéey nañu légui liggéey la ñaar doon séx kenn kay séx la ñaar doon def légui benn kay def ñu ne ko loolu duñ ko nangu mu nañ dàq naa leen nit ñëpp mois ñu ngi ñuy ba léegi te ngeen ñaata ngeen donc bëri na ñu ngi toll si cent cent trente six travailleurs ñëpp mu dàq leen ñëpp mu dàq leen ñu wax mu dàq leen da nga jël nit ki liggéey loo ko ay anne pendant des années xëy benn jour sa conseil juridique ne la nekkoo si yoon mu jël tâcheronnaa booy indi ko teg ko suñu diggante pour lay pour kon na buubuumu jaay pour pare wàññi ba pare suñu effectif yi mu jël wàññi effectif yi waaw yokk heure yi wàññi ñun nag ñun def nañ jéego yëpp tée doomu Saloum Saloum dina exploité comme ça kilifa yi toog di seetaan loolu mais ça c'est de l'injustice ah esclavage déguisé boobu la ñu bëgg a démontrer population Kaolack ñu xamante ne Saloum yi suñu Saloum lii la fa seen doom bi dund autorité nag dañoo bëgg ñu réagir du dëgg parce que tey président Macky Sall du toog di xaar doomam di xaar di xaar doomu Amadou Sall ñu koy liggéeyloo ay pendant cinq ans bañ ko defal contrat à durée indéterminée ba pare mu ñëw ne da nga may defar yi ñu ne ko mukk ñu dàq ñu dàq liggéey loolu dafa ñaaw donc nous avons besoin état bi jël mesures régler cette situation actuelle surtout président de la république à l'ensemble de son gouvernement. Madame, suñ maanaam suñ situation suñ ko réglé wul lépp lu ñu gisaat nous ñun la ñun phase de négociation phase d'action. merci beaucoup. Oui. donc tout bi bien. D'ailleurs.